kañ te saa waaye dafa am lu ma soxla mu def ko bu ko defee xam. Ah, bu nekkee candidat lan nga soxla mu def ko. na ne day changer constitution Sénégal dañ koy defaraat. ah waaw man dafa am lu ma gëm. gën ko ko gëm mën ne ko gëm moom laa bëgg. mais lan moo tax nga bëgg mu ne dafay changer constitution Sénégal parce que suñu constitution baaxul moo yàq réew mi suñu constitution moo yàq Sénégal. donc consti loi modification bi ñu def 2016 da nga bëgg. constitution bi. ñu ñu refondé la constitution waxuma bu 2016 2016 modification si biir la nekk. bu ma nee la constitution rek. lépp ñu refondé. luy refondé. ñu ñu toog waxtaanaat bind constitution bu bees wootewaat ko. ñu tas bi ñu bàyyi nañu wax olof. ñu ñun ñun sénégalais yi ñu toog ne dañu bëgg constitution bu uteex bi fi ne yépp bu méngóog ñun la ñu doon la ñu bëgg. su ma wax la lu tax nag. Hmm. nit buy wax da koy laaj lu tax. gis nga France mu ngi si dix-septième constitution France dix-septième constitution mooy dox fi mu ne te boobu dix-septième constitution mooy bu 1958 bi moom lañ ñu jox moom lañ ñu jox ñu jël ko nag di si africain xam nga africain dafa nguur dafa bëgg nguur ba Senghor xeexee Mamadou Dia ba daan ko la yokk di jël nguuram nag moom di sol rek di sol ku ñëw rek sol boo ki fi ne. ku ñëw rek alourdir texte bi. ku ñëw sol laa wax ku ñëw sol pour sa bopp ba tey de sorte que bu fekkee na nga nekk buur nekk bumi ñetti dërëm yi mu doon ñu yaa ko mayee ku xiif na yow léegi wax la olof ma la làkk. bu fekkee ne ku regg na yow la ku xiif danaan yaa ko joxul yow sa tey jii président boo xam ne. olof laay làkk bu leer nañ ci maa xam procédure yi yoon yi ñuy aw yépp waxuma daf koy def mais bu ko neexee bu ko neexee la mu bëgg si justice bi moo fi am ci bi laa ko wér man su ma nekkoon président mu neex ma la ma bëgg ci justice bee ci am nekkoon président mu neex ma la bëgg ci économie bi moo fi ne la bëgg pour man ak samay nit su ma nekkoon président mu neex ma la ma bëgg fii moo fay am su ma nekkoon président mu neex ma sa tere bii bu ma neexee mu tëj ginnaaw suba olof laa làkk de constitution bi dafa jox lépp le président de la république Sénégal yëpp nag loo mënti laal mën naa la wan na muy demee ba si président de la république bu ko neexee ku fi mënti nekk président ëllëg ku mu doon ku mu doon laa wax boo dawalee ñetti at ñëpp bañ la at naa ngi sunu kanam maa la mag fuuf at naa ngi sa kanam ku fi mën nekk président bu ma dundee ñetti at après woo ma dig ma wax lu bon li fi ne yëpp ne mooma c'est pourtant deful lu bon de. Hmm. mais lu fi ne nañ naan mooma ba du mënti liggéey dara constitution bi moo bon amul équilibre président des États-Unis sa États-Unis amul pouvoir yi président au Sénégal am si Sénégal. donc dañoo war a déprésidentialiser dañoo war a déprésidentialiser. c'est une de coloni c'est une constitution de colonisateur. moom la jël ñun adopté ko di si yokk suñuy ko léegi nag président bi moom kenn bu fekkee ni moom moom tout il suffit moom benn xarit bu ko gën a kawee lool kooku lu mu soxla mooy am Sénégal tam comprendre li ma wax. non comprendre naa bu baax li ngay wax léegi. suñu constitution am na benn benn docteur bu tudd Fodé Ndiaye xaw ma ko mosuma ko gis dama ko gis benn télé boobu ma tudd télé bi barke dem laa gis benn télé. muy wax benn journaliste. ban télé la. ma wax ko. oui. Hein? Ah. bien sûr. Euh, Alsane Samba Diop. da ngay da ngay compléter l'information du téléspectateur. ah man dama bañ rek def publicité. ah Alsane Samba Diop ITV démb moo interviewé docteur de Ndiaye. et de Ndiaye m'a aidé à conceptualiser en fait historiquement ce que j'ai toujours dit il a dit le Sénégal ne peut se sauver que s'il arrive à faire la transition entre la royauté et la République. c'est ça la conceptualisation de ma pensée moom ma ko defal le Sénégal ne s'en ne s'en sortira que s'il arrive à faire la transition entre la royauté et la république c'est terrible ça et sama néeg si sama bopp laal toute la révolution française est là-bas en livre ñetti guddee ngi ni ma tiim ko di xool ce qui s'est passé 1789 90 91 la première constitution 17 juin 1991 le serment du jeu de paume la nuit du 4 août ni français yi defaree seeni constitution pour passer du roi à la à république et à l'assemblée nationale xam nga ne le mot l'expression assemblée nationale foofu la jógee xeex bu metti entre la Sieyès et le marquis de Mirabeau ki naan l'assemblée des représentants du peuple ñu koy discuter ay mois et mois ba mu jël trouver l'expression assemblée nationale France adopté ko dégg nga assemblée nationale États-Unis dégg nga ko Angleterre dañu jël affaire tegal na ko suñu bopp ni ñu noonu ngeen di doxalee kooku dëggoo la ko def nag il l'avait dit il l'a fait ñun nag ñu yokk si suñu africanité suñuy affaire suñuy ko suñuy affaire yëre lépp mais il faut ñu toog xam nga léegi moo la benn exemple lu xew ñu ne sëriñ si seet na sëriñ Mountakha seet na fii sëriñ bi nañu wax waaw ñëpp naan sëriñ si nañu wax waaw quel est le rôle des marabouts Sénégal constitutionnellement amuñu amuñu statut ah, pourtant yaa ngi naan sëriñ si wax ma naan sëriñ si wax ñëpp naan sëriñ si wax. amuñu statut est-ce que loolu bokkul suñu aada ñun aada bi ñuy équilibré est-ce que suñu constitution mënuñu leen jox un rôle consultatif boo xam ne c'est constitutionnel. du entaché la la laïcité bàyyi koy. non ma ne du entaché suñu suñu caractère laïque de nañ dugg si laïcité laïcité mooy lan. laïcité c'est la division c'est la séparation de l'église et de l'État au début du du vingtième siècle la laïcité mooy lan. en France on discute sur la laïcité l'église gouvernait le monde européen attends c'est l'église qui gouvernait le monde européen l'église était dans l'état moo tax au moment au cours de la révolution française il y avait l'aristocratie le clergé et le tiers état le clergé déggoo l'aristocratie di garder seeni privilèges le tiers état faisait la révolution pour abattre les privilèges c'est ce qui a conduit à la donc en parlant de laïcité ça man maa ngi topp euh, taar boobu. ça veut dire des problèmes ñoom seen problème lañu am réglé ko. mais ñun moom la ñun ñu jël suñuy texte ñu bëgg a dee. conformé ko ci problème yoo xam ne ñun amuñu ko. ñun ay mots rek la ñu jox <laughs> ñu nekk fi di xàppati ngàppati naan la république la démocratie la laïcité xamuñu mooy lan xamuñu fu mu jógee. alors que dañoo war a conformer suñuy texte ci suñu aada. suñuy valeur mën nañ nekk républicain républicain mooy lan républicain vous savez euh, la Grèce antique. Athènes est une république mais Sparte aussi est une république aristocratique guerrière alors Athènes est une république non aristocratique dite démocratique sauf les esclaves et les étrangers qui ne pouvaient pas voter d'où vient le mot république cette respublica la France n'a connu la république qu'en 1791 xeex la pour ñu xam luy république ba léegi xamaguñ ko sax parce que boo demee assemblée nationale française effigie effigie wu royal roi roi yi moo fa nekk ba tey alors où est république. alors ñu terminer ñun nañu créer nañu créer mhm. suñu république. donc bëgg ñu créer suñu république. selon suñuy charte ak selon suñuy charte àddina ak suñuy valeur fexe nag ba pouvoir président de la république nekk pouvoir bi si ëpp mais nag am lu ko équilibré nga xam ne duñ ne lu am mooma lu am moomu boobu moo dangereux dafay def lu baax ba du amati dàll yi mu sol xëy suba benn affaire bu ndaw ñu ne yaa ko yàq ñu ne moo ko